ngeen jëloon tey muy xutbaay tey bi mhm. euh, lan mooy euh, lan la ci lislaam wax waaye itam lan la mën a jural réew mi waaw euh, li mu mën a jural réew mi yaatu na lool waaye baaxul mhm. li ci lislaam wax itam mooy wattandikule ko li ci gën a yéeme sax mooy baatu laana mooy rëbb mhm. am nga rëbb bu ñu ko waxee rek mooy garaaw na garaaw na dëgg la waaye ger bokk na ci li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko rëbb Mhm. te bariwul lu muy yóbbu ay mbir mhm. waaye nag boo boo waxee ger mhm. ñett ñoo koy bokk léeg-léeg wala ñaar lu mu néew néew maanaam kii ger ak ki ñuy ger ak courtier bi nekk ci diggante bi ñoom ñëpp ci lañ kenn ki raas la tudd kenn kenn ki murtas yi la tudd kenn ki raais ñett ñooñu ñëpp ñooy bokk selil allahu ñooy bokk selil bu ñuy dugg yow mii facilité nekk courtier ne ah xaaral ma passe la numéro. waaw xaaral dinaa dem ci moom pour ma wax ak moom. balaa ngay ñëw. Mhm. <laughs> kooku yëpp ci ger gi la bokk. ci ger gi la bokk. waaye nag euh, sànq ci xutba bi xam xam nga lan laa wax sax dama leen ne ger. Mhm. dañu ko wutal mbubb mu rafet ci Sénégal. Mhm. wutal ngoo mbaax na mu rafet. léeg-léeg sax ñu sonal ko ay lunettes ba boo gisee ñu ne ay gentleman. te fekk ger la maanaam ñu ngi ko tuddee njëgu guro xam nga njëgu guro rafet na njëgu guro waaw wala rooy raxasoo rek loolu yëpp ger la waaw wala wala euh, xaaral ma grincé tuuti rek nga kii la waaw yooyu yëpp nag ak tur lu mu wuute wuute bu fekkente ne ah waaw mais oustaz waaw euh, tey bu fekkee ne damaa ñëw waaw ci yow doon ut si dara waaw joxuma la dara mais damaa ñëw nga def fa defal ma liggéey ba na mu waree li ko yoon waxee jox ma may dem sama xol sedd waaw ma yëkkati na li jënd ci guro oustaz est loolu ger la voilà loolu question la léegi ger daal fi mu uh-huh. koy trouver ci ci ci liggéey bu nit ki war a def par rapport ak ki mu koy defal uh-huh. mooy bu fekkente ne euh, boo joxee mu gaaw boo joxewul mu tardé mu tardé <laughs> <laughs> voilà élément boobu bu ci duggee rek waaw xamal na ger am na ah waaye nag waaye nag euh, loolu nga def noonu xam nga li nga wax noonu waaw mën nga ci dugal nandite encore. ne xaaral ma jox ko pour bu bu beneen yoonee. waaw bu ma ñëwee rek créer relation boo xam ne bu ma ñëwee rek moom mu sawaraat. maanaam mel ni da ngaa fasanteeg moom kóllëre ngir ëllëg boo ñëwee yëf yi mën a gaaw ci loo xam ne service la boo xam ne daf ko war a def rapidement rek. ki ko war a jot jot ko xam nga loolu. dafay dal di dafay dal di garaaw nga xam ne ku joxewul. ñu ne la demal ba ginnaaw suba ku joxe ñu ne la am tey. loolu te euh, la ngay joxe du dugg ci benn kees. lu ci poos. loolu mooy guerre phénomène ba euh, yaatu na te ci niveau yëpp la bokk nag. dëgg la niveau yu kawe kawe ca ya yaak. Mhm. ni ñu koy joxe yu mel noonu yëpp daf cee am. dëgg la ba ba ngay ñëw ci këyit boo soxla. Mhm. xam nga Mouhamed. balaa nga xam ne guerre bi yaatu na. waaw boo soxla woon benn këyit nii ci benn ministère wala benn euh, fu mu mënti doon. Mhm. foog daal pour nga régler sa problème da ngay yaakaar ne il faut nga laajte ndax xamu leen xamu leen kenn ci béréb sangam. Mhm. xam nga loolu rek problème la. loolu rek problème la. pour nga mën a daal foog nga mhm. xam. loolu rek problème la. kenn ca foofu pour pour say yëf mën a réglé wu. Mhm. te boo mhm. xamee béréb bi rek doyoon na pour nga régler sa problème. dëgg la dëgg la waaye foog nga nga laaj koo xam ne ndax xamul kenn foofu. Mhm. moo tax suñu système boobu daal bokk na li nga xam ne. Mhm. war nañ ko jubanti. <laughs> dëgg la dëgg la war nañ ko jubanti bu baax a baax parce que gerte li mu yàq bari na. waaw loolu nag loolu nag du du du du du yomb oustaz xaaral bala maa jàllaat ci question bi. <laughs> Ah, yomb de euh, euh, Pa Matar nee na moo ngi joué moo ngi nuyu waa euh, keppaar gi. Ah, ne ko anam moo kii nii Ahmadou Ahmadou Mbaw moo ko wax daf ne salaam waa keppaar ge eh, gis nga mu naan Pape Matar sa leer tu Pape Matar duy toog de keppaaru diine gi bi tey mooy toog <laughs> bii Pape Matar du toog bi tey mooy toog ah, ah, eh, sunu maam Biram mbaa <laughs> dikk na eh, maam Biram bokkul àjjuma ah gaañi gaañi yëg yéen a ngi may bëgg a jaaxal de ah ah yéen dafa mel ni ñii xanaa dañoo gëj a dañoo gëj a déglu ñoom nag altine lañ am ba alxamis da ngeen leen di noppal nag àjjuma Oustaz si ñëw toog jàkkaarloog man ñu waxtaane diine ak jamono <laughs> ah, waaye ñu ngi leen di jaajëfal xër la rek xër la rek xër la rek ah Fatou Ndour mi ngi waa keppaar gi maa ngi leen di ziar bu baax a baax ah ah gaajaa ngi gaajaa ngi bind di di di rafetlu macha hmm. allah ah, gis nga kii nee na waa keppaar gi macha allah liggéey bi nice na muy may mun a ah, ah Walf toujours avec le peuple ndeysaan ndeysaan noonu la de noonu la de ñuy ziar bëri Euh, wax dëgg yàlla ah macha allah alors mhm. oustaz. dañuy desandi ba léegi ci ci ci ci ci ci guerre boobu ngay ngay ngay wax noonu mhm. oustaz. Euh, xam nga xam nga ñaari façon dafa am. Mhm. maanaam doomu aadama bi nga xam ne euh, dafay wut si dara. wala mu bëgg dara. mu ñëw waale la dara wax la soxlaam. joxaale la dara ba pare doo la wax soxlaam doo ah. boobu mun nañ jàpp ne boobu guerre pire la. <laughs> parce que da ko jox ba pare doo wax sa soxla. wala nga ñëw ne boo ma defalee lii dinaa la defal lii loolu itam mën nañ wax ne mën nga koo dugal ca biir ma hmm. par ponk laa lay teg nga wax ma benn bu ci nekk ki nga xam ne dafa ñëw euh, avant muy joxe wax soxlaam mu jox la doo a wax soxlaam ak ki nga xam ne daf ne la boo ma defalee ma defal la lii ak ki nga xam ne da nga kaa defal ba pare mu ne la sama xol sedd na lii jàppal ci lii hmm. muy ñett façon xam nga sax moom euh, ki nekk ci euh, service public. waaw ay gants nga war a sol maanaam waroo téye sax lu ñu naan xaalis. Mm-hmm. da nga ko warul téye sax en principe maanaam service public la boo xam ne. Mm-hmm. dañ la teg fii askan wi moo la fa teg. Uh-huh. askan woowu nag feyoon na la ba pare. Uh-huh. Euh, amatul bu la feyaatee doublon lay doon. bu la mm-hmm. joxaatee dara doublon lay doon loolu mooy. loolu mooy système mais fii bi fii yàqu ba yàqu ba yàqu. mooy mooy waral li nga wax ñu defal la nga kontaan ci. te fekk mhm. waroo ci woon kontaan sax bu fekkoon te ne yëf na yoon mhm. la war a defal rek la parce que sa mbindaan la boo xam ne yaa ko fa teg. yaa ko fa teg pour mu lay liggéeyal nga ko. Mhm. ba pare. Euh, boo la loolu mooy bi moo tax. même sax ñu liggéey la ba pare sa xol sedd nga lay am jàppal sax. bu yëf tegoon fi mu war a tegu sax loolu warul am. loolu warul am. waaw léegi ba ca topp mooy ba nga njëkk wax. mooy. Mm-hmm. Mm-hmm. nit ki nga ñëw rek salaamaaleykum rek dal di ko fëgg. Mm-hmm. benn somme. daal di ko fëgg benn som voilà nga ne a ah, man de lii laa soxla woon. Euh, laa soxla mu ne ah toogal toogal toogal moom kay lii kay moom kay yéen moom yéen lañu fi nekkal moom kay yow moom kay. <laughs> ñaari minutes rek mu génne ko ne mu ngi nii. mu ngi nii. <laughs> foofu ger nga ko bu yàgg. waaw loolu dëgg la loolu loolu boobu de ger nga ko bu yàgg nag moom. <laughs> ger nga ko ah. ger nga ko mais ah. nag. Euh, lay tax ba du niroog der da nga koy tuddee ay njëgu guro. ay njëgu guro ah, dëgg la ah ci njëgu guro gi ah naanal café naanal café ci lii am nangam. waaye yooyu yëpp daal bu fekkente ne daal boo joxee mu gaaw. waaw boo joxewul du gaaw. ger dugg na. dëgg la dëgg la wala boog euh, bu mujjee boobu nga wax nga joxe. nga joxe waaw ñu la nga kontaan nga joxe. waaw mais peut-être pour beneen yoon. déet mais mais mais mais mais beneen yoon boobu loolu lu tax nga bëgg ñu dugal ci beneen yoon boobu <laughs> oustaz ah. day am mën na am de. ah déet da nga xam ne kii dinaa ko soxlawaat. waa d'accord mais bu waroon ne tey la yem xëy na doo doo def dara nga ne eh mën na am ma kii kon xaaral. ma def loo xam ne bu mu ñëwaatee beneen yoon dina ci sawar. dina ci sawar boobu dafay dellu dugg ci ger encore ci ah. <laughs> Oustaz Oustaz loolu loolu xaw naa xaw naa kéemaane <laughs> tuuti de. <laughs> waaw day dugg ci gar. waaw loolu kéemaane na tuuti tuuti tuuti tuuti parce que gar leble la ak wala fay bor. ak fay bor boobu leble la. dëgg la donc ko lebal loo xam ne il faut da naan war nga ma fay nag bu ma ñëwaatee beneen yoon. mu gën a gaaw loolu boobu baaxul. boobu baaxul. voilà te euh, Mouhamed boo see boo gisee suñu réew Afrique yi. Mhm. am retard bi ñu am. Mhm. bokk na ci gar gu metti gi. Mhm. ger gi ci ay bi nekk ci ay projet mhm. oustaz yaay sonné wala waaw yaakaar naa fii la de ah. ki ñu naan Modou sax mooy woote Modou Fall da nga koy décroché ne ko Modou Fall yaa ngi direct ci rajo bi loolu kay amul solo waaw léegi ah. euh, loolu la maanaam euh, ger bi waaw ger bi dafa dafa nekk ci niveau yu kawee kawe ay projet yoo xam ne appel d'offre la ñu waroon def waaw ku gën a mën te gën a oyof loxo mhm. mu jël yëf yi waaw ger mën na fa dugg ba nga xam ne. Uh-huh. loolu régal boobu dafay du du duñ ko topp. duñ ko topp dëgg la léegi loolu nga xam ne kon dafay jeexital sax ci liggéey bi ci boppam. parce que jox nga ko koo xam ne mérité wu ko. waaw na mu koy liggéey itam dafay feeñ ci qualité ba ak lañ ca ak la mu coûté. waaw tooñ nga réew mi ba pare nag. Uh-huh. nga tooñ sa bopp parce que yaa ngi lekk loo xam ne euh, lekkuwul. lekkuwul ba pare nag ñoo yéen ñaar ñëpp ci ngeen di bokk maanaam ki gëraate. ak uh-huh. ki ñu ger ñoom ñooy bokk benn at. ok waaw parce que ñu bari dañu yaakaar ni ah ger gi de mooy ki ko jël rek. ñu bari loolu la ñu moo lekk xaalis bi mais ki ko joxe sax dangay joxe bi pare ñu dóor la. kon loolu kii na niveau yu kawe yooyu ger am moo tax suñu réew Afrique yi am jafe-jafe ci wàllu wàllu développement parce que ay milliards milliards. Mhm. lay doon yoo xam ne fa mu waroon dugg dugg fa. dugg fa. Mhm. Euh, te dafay fere ne. dynamique bi nga xam ne liggéey bi waroon na ko àndal. Mhm. yow da nga soxla kayit. Mhm. da nga waroon dem rek am nga amuloo. Mhm. bu dee lu ñuy joxe la kay ñu nga nga jaar fi ñu war a jaar rek. nga dal di ko am mais loolu du cas bi. loolu da ñëw ñu teengal ko sax. ñenn Modou Fall mooy woote ba tey. waaw ñeen naa lay. est-ce que du urgence. Euh, dé déedéet sax yooyu yeneen kii la. yeneen bagages la. pourtant soo newul sax xam naa dafa vivre. ah ah, <laughs> <laughs> <laughs> ah. waaw léegi. Uh-huh. Euh, loolu nekk na jàngoro joo xam ne bu fekk fajuñu ko. Mhm. fekk fajuñu ko rek dina dinañu. am dinañ defal benn handicap ci wàllu social defal ñu benn handicap ci wàllu. Mhm. wàllu économie. Mhm. te toujours da gis euh, rapport yi faral di génn. ci at mu jot. ñu ne réew yi ci wàllu guerre kii mooy jël première deux deuxième ba fa mu yem. léeg-léeg gis ne suñu réew yi fu ñu tollu ren rek. déwén bu déwénee dafay dafay dafay kii dafay gën a dañuy gën a yokk garat ci wàllu ger waaw waaw te loolu itam euh, jàngoro la joo xam ne mm-hmm. yaakaar naa ne avec système yu bees yi ñu lancé nii mm-hmm. euh, bokk na ci li ñu war a war a jubanti baax na waaw boobu yaakaar naa euh, option wu jubanti moo ko mën a réglé mm-hmm. waaw ah, voilà kon yaakaar naa loolu loolu loolu am na am na solo ah, Oustaz Souleymane moom damaa xamul fan lay taxawaalu ba heure bi di nuyu nag waa Sokone bu baax